ak suñu yeneen partenaires yo xam ne ñoo ñooñuy ñoo ñuy comme 350 ak euh, Global Green Fund euh, yàgg nañ sobu ci ci campagne bi di ci xex bo lool mo indi won en 2018 euh, ñu lancé won ben campagne tuddee ko Decolonize li ko taxoon jóg rek mooy fexe nous centrale bi tejé ah lool tamit ñu def ci ay djégo organiser activité yu bare bare ah ba amon na sax évolution ci digënt bi ndax amna ay engagement yo xam gouvernement bi jotoon na ko jël ne légui désormais charbon bi dina jóge ci euh, euh, centrale bi dina jóge ci charbon dem ci gaz loolu engagement la yoo xam gouvernement bi euh, jëloon nako mais ba légui ñu gis né lolu amagut té tamit centrale bu légui mu ngi fi taxaw té nak si si ay for ci wéyu béy sax nak lu am né day day sax def ay production mu nek lo xamné lu doy war la ci contexte bi nga xam ci la nek ñëpp di xeex changement climatique réew yépp war a jóg xeex lépp luy xam ne mooy énergie fossile ah centrale bi nekk na fi dëj rek si soo jëlee dëkk bu mel ni Bargny nga xam ne tey

ah te peut-être xëy na entre temps constat bi ñu def mooy que ne xeex bi xam na d'intensité parce que am na yeneen ci yoo xam ne moo ci dugg ñu ne nag dafa jóg ñu dajewaat remobiliser waat euh, euh, taxawaat amaat beneen taxawaay wutaat yeneen doxalin yu bees pour gën a mën central parce que lenn rek moo ñu ci intéressé mooy mu jóge fi purement et simplement parce que bàññi attanut central bi te du ko mos a attan loolu moom loolu moo tax ñu taxaw daje fi pour xool ban pexe ak ban stratégie la ñu lal continuer xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex am yaakaar nag cette fois ci que ne suñuy njiit dinañu dégg bat ñi sonn na bat ñi dafa étouffé centrale bi au moins na fi jóge